mbokk yi asalaamaaleykum très très ravi de vous euh, retrouver en espérant que vous avez passé un bon week-end ñu dellu seeti ci seen émission seen show euh, fas yéene waxtaan li gën a fës ci wàllub actualité tey ñu tànn ñaari jàngoro yu sonal doomu Sénégal yi bokk na ci wàllub foncier ak itam naturellement euh, jàngoro yi coronavirus ba tey donc dinañu ci ñëw waxtaan ci incha allah ci anam bu yaatoo yaatu et pour en parler aujourd'hui sur ce plateau nous avons Cheikh Oumar Sy waaye itam di président bu OSIDEA ñu ngi lay nuyu di la dalal suñu plateau. merci beaucoup leen di fay di fay téléspectateur ak téléspectatrice su Sen TV euh, di leen remercier ci invitation bi nga xam ne tey maa ngi koy partagé Fadel Barro merci euh, bokk ci Y'en a marre Fadel itam ñu ngi lay ñu ngi lay fay Khady di euh, di nuyu ak sant téléspectateur Sen TV nga permettre na ci njëlbeen. balaa ñuy tàmbali ma réitéré maanaam tollanti sama engagement mhm. sama dogu sama soutien ak sama solidarité. ci groupe des médias par rapport ak euh, tolof tolof yi nga xam ne mi ngi koy dab ci yoonu liggéeyam. maam mhm. gis nga fan yi euh, ay CNRA leen sonal leen harcelé ci loo xam ne teguñu ko fenn te ñoom defuñ lu jul euh, def seen liggéey informer nit ñi ba pare nit ñi am droit am information mhm. en tout cas di réitéré ne man ànd naa ak yéen ci xeex boobu. Mhm. ñun ñëpp sénégalais yi nañ ko dakkal parce que lii ñu fi bëgg saxal bu jibee ci réew mi du baax Sénégal dëkku liberté la dëkk. Euh, droit d'ex liberté d'expression la te loolu kenn du ko sooxeel ci biir réew c'est di la jaajëfal ci teewaay bi waaye itam ci soutien bi di la rassurer que yoon bi ñu nekk incha allah dañu ko wàcc benn yoon également sur ce plateau nous avons Ndeye Dimet Ndaw ak Fatou Abdou Ndiaye à qui nous disons bonsoir fas yéene ànd ak ñoom ci émission bi door incha allah léegi-léegi alors euh, le constat est là malheureusement wàllub euh, malgouvernance dafay gën di persister fii ci réewub euh, Sénégal ñu koy gis nag ci anam bu nekk waaye tey ñu waxtaanee wàllub foncier ci coow dogoo ko ci coow bi juddu fan yi ñeel littoral bi donc dañuy ñëw seetaan le candidat Macky Sall laata ak accédé ci nguur gi moom xalaat bi mu ci amoon ak kàddu yi nga xamante ne moom la ci yëkkati woon bu ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi. fi ma taxaw nekk fi ci Wakaam ngeen gis jëf ju ñaaw ji nguur gi def dindi miir bi toj ko dàq miir bi mu dugg ci biir génne ay hectares yi hectares yoo xam ni dañu ko jaay ci anam yoo xam ne teguwul ci yoon menacé nañu sécurité aéroport bi sécurité avion bi moo tax ñu yàkkamti naan dañu def aéroport bu njas di ko pëtam pëtame jaay nañu fii te njaas pareegul ndax njaas mënul pare fii juróomi at te bu ñu moytuwul danañu ñàkk boobu ñàkk ceeb ba ndax aéroport bii dana yàqu te njaas du pare lépp ngir alal ak spéculation foncière jaay nañu wakkaam suuf su bare tabaxee ko monument te condition yu leerul yoo xam ne dinañ ko leeral bu ñu ñëwee incha allah lii nag dafa bokk ci ñaawteef yi nga xam ni vraiment euh, pouvoir bi fi nekk mu ngi koy def. archivé par archive.com suuf nekk na loo xam ne askanu Sénégal yëpp. voilà donc euh, mu nekkoon euh, le président Macky Sall laata moo accédé ci nguur gi di joxoñ baaraamu tuuma régime bi fi nekkoon par rapport à li ñu nemmeeku tey mu mel ni que wax waxeet la def un peu. waaw li ñu constaté en fait euh, c'est encore mun nañu ne pire parce que a on, on pensait ba ñuy jóge ci régime wala tous les scandales fonciers yi fi amoon euh, li nga xam ne jot nañ ko fi gis ci ci ci bradage bi amoon sous le régime Wade ak le ponte nu ñu séddoo seen biir ministres yi ak ñi fi nekkoon nu ñu séddoo woon seen biir foncé bi te Macky bu ñëwee ne loolu dañ ko changé malheureusement malheureusement le constat est encore encore pire parce que tey boo leen gisee coow li gën a bëri tey mu ngi jóge ci littoral bi euh, te littoral bi en 2014 y avait y avait le mouvement non au mur ñoo ñoom Fadel Barro foog naa ne ba ñu arrêté woon on était ensemble euh, benn benn benn benn dimanche matin ñu manifester ñu téye ñu ndax no ndax dañu tere woon dañu suñu combat moo ñu bañ a tabax l'ambassade de Turquie sur la corniche mhm. des années plus tard ah six ans plus tard ñuy gis ne ñu ngi koy jox benn société CDE avec bu bëgg bu fa bëgg def lu ñuy wax écoloisir encore pire que ce qu'on attendait et l'accaparement déjà on l'a vu avec Terrou-Bi li nga xam ne la petite piscine des enfants jël nañ ko ñoom écologie ñu ngi fa Radisson de notre côté mais ce qui est encore dramatique mooy construction privée yi fa bëri parce que te bu ñu ko waxee boo bu ma nee c'est dramatique parce que ñi fa nekk ñëpp ñan lañu ñu c'est des ministres c'est des marabouts c'est des hommes d'affaires c'est des prête-noms c'est des artistes c'est des des juges tous ñi nga xam ne tey dañu jege pouvoir bi wala am accès ci pouvoir bi wala nekk ci wetu famille pouvoir bi ñoo am accès donc li ñu indi tey mooy ils ont violé carrément la loi sur le littoral du domaine public maritime parce que loi domaine public maritime li mu wax il faut nga nekk à 100 mètres de la mer ça c'est un deuxièmement li ngay tabax warul nekk en dure parce que foofu mënoo ko jaay c'est inaliénable c'est c'est imprescriptible ba pare loolu du sa moomeel donc yow moom moo ko donc li nga fa war a def ça doit être d'utilité publique mhm. bu ñu nee d'utilité publique par exemple on peut en donner un exemple boo xam ne même si c'est pas carrément carrément ça mais euh, la statue la euh, euh monument de la Renaissance ñëpp mën nañu fa accéder mhm. moom mën nga accéder sans problème mais li xew léegi mooy ñenn ñu jege naa le pouvoir bi ñoom la ñuy jox suuf si foofu ci littoral bi bu soo foofu tamit mais Dakar liñ mais demal fii ci aéroport mais c'est un scandale boo xam ne actuellement qui se passe avec l'implication directe de, de, la direction des impôts et domaines tey bu amee problème au Sénégal et ça il faut vraiment insister il y a que deux choses parce que domaine public maritime président de la République kese kese kese kese kese par décret moom moo ko mën di joxe. te Djibril jàllo bi nga xam ne ñu koy tudd c'est le Djibril Diallo pas sous-préfet mais le Djibril Diallo ONUSIDA moom moom dañ ko fa jox 4000 mètres carrés mais pourquoi lan la la ëppale yow wala ëppale la yow wala ëppale Fadel boo ñu war ko mën a jox deux quatre millimètres mu dagg deux mille yi jaay ko pour mën a tabax benn R R plus un mais c'est scandaleux te moom déjà la société qui construit ça certain nee nañu non ñoom dañuy aménager foofu parce que dinañu mettre permettre euh, ñi fay ñëw di sport si wala ñu fay wàcc ñu accéder c'est faux parce que li ñu aménager dañu wàccee falaise bi war ko mën a defar ko ba nga xam ne ñu mën a am foofu benn 4000 mètres carrés 5 mètres nee nañu am na 5 mètres entre la plage alors que la loi dit mètres de la plage. ça ça ça c'est vraiment des situations aujourd'hui qu'on ne pensait pas vivre sous le régime de Macky Sall. mais on a vu que aujourd'hui euh, euh, il faut le dire et c'est dramatique quelqu'un qu'on comme direction dans la direction des impôts Barki Demb

domaine euh, public maritime euh, parce que comme ni nga ko évoqué bëri ay scandale yu am ci wàllu suuf si yow nekkoon nga député assemblée nationale euh, bëri loo xamante ni liggéey ngeen ko ci mbirum environnement surtout ci wàllu boobu waaw xam nga ba ma nekkee assemblée nationale j'étais le secrétaire exécutif du réseau pour la protection de l'environnement donc ñu ngi doon liggéey fondamentalement c'est si la sur le littoral mm-hmm. te ñoom tamit yaana am ba ñuy protéger le littoral avec les filao le droit bi lu mu wax domaine maritime bi c'est depuis 1976 Senghor avait pris la précaution Senghor avait pris la précaution ci ci biir droit de ci biir loi bi mu ne ne foofu loo fay mënta tabax yépp na nekk da nekk da na nekk lenn loo xam ne ñépp mën nañu fa accéder ça c'est un deuxièmement buggul woon kenn tabax loo xam ne si à titre privé parce que am na fa benn benn temps on a essayé de diriger une mosquée là moom de son temps ñu ñëw ñu toj ko ñu dindi ko mu ne leen li fii c'est parce que bañ koy ériger en domaine public maritime dafa am benn rôle régulateur boo xam ne euh, euh, littoral bi da ko joué boo jëlee virage jëm ba Cap Manuel dafa mel ni benn aiguille montre lan moo koy def c'est-à-dire que day permettre circulation de l'air léegi virage hôtel de virage dafa baare benn pan wu air bi c'est-à-dire que boo xoolee léegi hôtel yi fa nekk yëpp ak yi finalement dañu détourner complètement circulation de l'air bi nga xam ne moo doon permettre dakaar muy aéré moo taxoon sengoor ba mu leen teree foofu dafa ne mais en face mu ngeen tabax ay kër yu xoolee point E c'est des c'est des c'est des c'est des fans c'est bien faites bien bien spacieuses loolu moo doon politique sengoor nañ ko mën a aménager et éviter l'utilisation du domaine public maritime mais ci biir loi bi ci boobu dañu leen mënoo ko jaay mënoo ko jaay même bu ñu la ko joxee à titre de bas ñi la fay wax yëpp tey ne ils ont un titre foncier ils sont dans l'illégalité parce que ils sont en violation de la loi. mais li ci jaaxal parce que l'article 19 la ñu utiliser pour déclasser et c'est le li ci jaaxal nit ñi tey mooy euh, loi bi li mu wax côté boobu dafa leer président république moo am sañ-sañ def lu muy def te tey président boobu am sañ-sañ boobu moo taxawoon yëkkati ay déclaration wax ni bu ñëwee lépp dina leer. waaw mais def na déclaration mais 2014 li may wax moom moo ñëw taxaw ci littoral bi ak ñun moo ñëw taxaw ne lii day dagg on lui a montré tout le littoral lan moo fay problème mu ne lii day dagg mais on a vu que c'est ça s'est encore parce que le sieur Diallo bi ñuy wax 2017 bi lañ ko jox moom moo ñu votaloo en 2016 la loi sur la constitution pour la, la dans l'article 25 2 qui dit faut protéger l'environnement donc tu peux pas dire aux Sénégalais on va protéger mu ñëw ne ko kaay ma jox la 4000 mètres carrés mais pire allez voir nee na marabu sëriñ politicien juge magistrat loi euh, géejawaay bi boo demee filao yi lan la su sont les magistrats on bañ nañ ba tuddee ko laa cité des magistrats donc ça devient vraiment un un un scandale très mais en plus quoi euh, gis nga université Cheikh Anta Diop ba koy ñoom ñoom Senghor di teg teguñu ko fa ndax neen parce que université bi dañ ko bàyyi woon mu jege géej gi pour jeunes yi mën a am espace de loisir loolu moo indi woon parce que l'université c'est un melting pot que nga dëkk Matam que nga dëkk Ziguinchor que nga dëkk Badakhun foofu mooy ngay ñëw foofu ngay demee après di am ay lien di dem mhm. en plus régulateur social la boo amee say problème foofu ngay wàcc boo nekkee un poète foofu ngay dem bind booy def say musique foofu ngay wàcc imagine leen léegi teeru bi tabax na ñu bàyyi école waa si tabax avec CDE Radisson est déjà à côté espace yu réduire nañ ko nga xool fële yas euh, Desusa Ngaso euh, kii nu mu tuddati. Sassou Nguesso mu ngi fa nga demaat tuuti encore euh, waterfront étudiants yi fan la ñu am benn espace du ñu am espace et ça va créer une violence plus tard bu gën a grave université parce que dañuy mujjee mer parce que est foofu fi ñu fi ñu moomoon ci boppam état bi mu ngi koy seetaan et ça la promiscuité foofu lay daaneel mooy xale yi di ñëw di jàng si plus il y des espaces comme ay hôtel ak affaire yooyu elles tendance ay bàyyi seen jàng dem dugg ci hôtel yi pour mën a wut liggéey